Maurice Soudieck Ndione une première adresse à la nation de Bassirou Diomaye Faye mm. euh, est-ce que li mu wax tey mu fixé na ci yow euh, li nga xam ne moom moo war a nekk les marqueurs euh, du quinquennat oh, jërëjëf Maïmouna je pense que le président Bassirou Diomaye Faye def na <coughs> un excellent discours discours bi mën nañ ko articuler ci ay ponk yu bare Euh, benn ponk bi moo di ci wàllu koom-koom beneen bi ci wàllu euh, bennoo gi réew mi war doon benn beneen bi mooy ci wàllu euh, disons relation internationale ak beneen bi ci wàllu euh, donc euh, euh, nan la ñu organiser les réformes politico-institutionnelles ba nga xam ne dinañu gën a ñongal suñu démocratie alors sur le plan économique wax na ne day dina dooleel secteur privé bi mais avant cela dina def en sorte que njëg yi nga xamante ne dafa yéeg boo jéggi dayoo mu mu fexe ba wàcce ko <coughs> ndax dund gi dafa métti donc dina ci taxaw thème bu loolu weesoo nee na it dina dooleel secteur privé mais dooleel secteur privé bi nekkul dañu dàq secteur interna secteur privé international mais secteur privé local bi dinañ ko dooleel ba nga xam ne sénégalais yi nga xam ne dañu jéem ci wàllu koom-koom ñu jàppale leen ba nga xam ne dinañ mun a gën a dëgër ba pare euh, koom-koom gi nga xamante ne moom lay jur dal di mën a tasaaroo ci biir réew mi yëpp euh, président Diomaye également wax na ne euh, lépp li nga xamante ne mooy ci wàllu bennoo Euh, war na ci insisté d'ailleurs foofu la jëkkee parce que euh, forces armées ak unité nationale maanaam <clears throat> ñi nga xam ne ñoo yore kaaraangi réew mi ak euh, aar réew mi boo réew mi nekk benn loolu mooy thème bi donc président nee na wax dëgg war nañu gën a booloo nekk benn parce que benn nation lañu benn ngëm-ngëm benn askan benn jëmu un peuple une fois wax na itamit ne euh, ci wàllu réforme institutionnelle yi dinañu teg ay jéego yu bari benn bi euh, ci wàllu processus électoral li nga xam ne yàgg nañ ko fi wax ci fichier wala ci candidature même ci financement parti politique euh, génne Sénat dal di teg CENI commission électoral national indépendante boo xamante ne dañu gën a yokk ay sañ-sañam ak ay mën-mënam yokk ay moyen wam ba nga xamante ne processus bi dina nekk lu mucc ayib wax na itamit ne dina euh, dinañu fexe ba lépp loo xam ne mooy euh, guerre ñu dal di koy xeex ci ni mu gën a tare lépp li nga xam ne mooy bon gouvernance maanaam yorin bu sell ñu taxaw ci koom-koom bi am ci réew mi muy pétrole ak gaz ak or ak leneen ñu dal di koy teg ci yoon ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ñu xam ne dañ leen dénk waaye itamit dina dinañu euh, wax askan wi li ñu leen dénk nan lañ ko yoree wax na itam ci wàllu justice ndax justice gis nañ ne am na ay jafe-jafe yu fii am euh, ci diggante euh, euh, sàmmonte bi ñu war a sàmmonte ak ak ak yelleefu doomu adama yi gis nañu ne <coughs> depuis 2021 ba 2024 justice bi sooke na ci lu bare donc loolu yëpp président Diomaye nee na dina woo ay woote ay concertation maanaam ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne ñi sekk mbir mi yëpp ci wàllu justice dinañu teew ku ci ne nga wax sa xalaat wax sa gis-gis Euh, wax itamit la nga xam ne moom la ñu war a def ngir soppi euh, xar mu justice. mais nan ngay apprécier la ton euh, nu de la tonalité la mise la présentation parce qu'il a été beaucoup critiqué ces derniers jours. waaw je pense que il progressivement il va habiter la fonction il faut pas oublier que. ci euh, élection président Bassirou Diomaye euh, yàlla dafa wone dooleem dëgg mën nañu wax ne sax à la limite est-ce que c'est pas un miracle parce que boo gisee fi Sénégal jóge ak impasse bi ba ni ko yàlla doxalee ba ñu dem élection ba ñu fal un président ñëpp nangu élection bi jaar yoon ak jàmm loolu je pense que war nañ ko sant yàlla donc bu fekkente ne euh, fal nañ ko c'est normal que mu am temps euh, d'adaptation pour euh, habiter la fonction mais pour man il a il fait un excellent discours d'ailleurs bi mu changé la scénographie day dugg si pour ñëw wax ak sénégalais yi donc ça veut dire que c'est une sorte d'ouverture réciproque ça veut dire maa ngi ubbeeku di jëm ci askan wi waaye yoon bi muy ubbi pour dem ci askan bi yoon bu askan wi di jaare pour ñëw ci moom la donc on sent ici <coughs> dans la sémiologie donc vraiment une euh, une euh, une innovation une innovation remarquable gis nañ aussi ne discours bi pratiquement euh, discours bu synthétique la maanaam la mu waroon wax yépp wax na ko Euh, la nga xamante ne yëpp lépp li nga xamante ne soxla woon nañ ko par rapport ak contradiction yi ñu dund Sénégal euh, pratiquement euh, tënk na ko ci discours bi en moins de quinze minutes donc mën nañu wax ne c'est un excellent discours parce que aussi ci ma yeggale ci fi ma <coughs> daanele sànq wax na aussi ci mbirum partenariat et partenariat économique ak les puissance étrangère mu ne dafa bëgg def ay partenariat gagnant gaña maanaam ñu xool toujours intérêt Sénégal intérêt réew mi euh, ñu wax ak puissance yëpp amul xaj ak seen dinañ leen teg sur un pied d'égalité wante ñoom it ñu waxtaan ak ñoom boo euh, Sénégal kenn du ko suufeel wante lépp loo xamante ne day dafa nekk koom-koomu réew mi sénégalais yëpp mun ci gis seen bopp donc mën nañ wax ne ci juróomi ponk yooyu le président Diomaye Faye euh, dëxëñ discours